alhamdulilah rabbil alamin seen soppe seen xarit imam Mbaye bu RDV di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci seen site bu am bi solo site internet bi di Dakar Net. Euh, imam ñu gis ne fan yi ni euh, association des imams et oulémas dañoo génne benn communiqué comme quoi que ne aj euh, julli ajuma yi dañ koy tegandi ndax jàngoro ji est-ce que loolu l'islam santaan na waaw xam nga islam géej la déggin yi def ci bari ba noppi alhamdulilah rabbil alamin te lenn lu nekk day am kilifteef day am njiit te islaam toujours dafay jox gëdd docteur wallu ñuy faj su ko defee su boobaa daf leen ci cëral lépp loo xam ne islaam am na ko di ca yëngatu dégg nga ña ñam wax ñu di ko jëfal bu dee julli bu dee lu mën a doon bu dee lépp lu ñu war a yëngatu islaam daf cay bàyyi xel docteur ka ko koy defal yoon bu ko ci docteur teg islaam daf koy jox na ko déggalal ma ndigalu docteur bii gis nga fi mu nekk nii soo doon woor tey eh, amin soo doon woor tey docteur sell na la munoo woor koor gi da koy bàyyi dangay ngay def ndigalu docteur loolu la charia santaane su fekkee dañ wax ne Eh, islaam daf ne maanaam docteur daf ne su ngeen dajee am na feebar boo xam ne mi ngi circulé su ngeen dajee mën na caa juddoo ngeen wàllante dégg nga mu juru leen musiba su boobaa islaam day wax ne daje gi ngeen di daje julli bàyyi leen ko kenn ku ne dem julli néegam dégg nga wala ngeen tàqali ko julli sorente su ko defee loolu docteur yi wax loolu la xam nga xam nga nit ñi dafa am tuuti lu séparé ak affaire bi xam nga waxuñ bu kenn julli docteur amul droit tere kenn julli il faut nga julli julli façon boo ko mënee da nga koy def danga julli sax def yaramu neen def yaramu nen julli da nga julli te doo sujjóot doo rukkoo da nga julli te doo jublu sax xibla fekk mënoo ko waaye julli kenn du ko bay julli moom force la kenn du ko bay kenn du ko bay léegi nag defeen wi nag moo fi nekk defeen wi nag danga koy defee ni nga mëne soo demee nag ba mën a dem ca mbooloo ma mën a def lépp mais docteur na la boo ko defee nii mën na jur lii su boobaa da ngay bàyyi defin wa def defin wi la docteur sant loolu dong mooy affaire bi loolu dong mooy affaire bi fa tabarakallahu waaye amul droit dégg nga fedd sa yoonu bopp wala damay def li wala damay def li déedéet loo xër-xër ak loo bëgg-bëgg diine na nga sóoraale li nga xam ne charia loolu la bëgg amin euh, ñu gis ne ñun jullit ñi lii balaa la balaa dañoo war a dajaloo ñaan ko est-ce que buñ ñu teree jumaay ak jàkk yi tamit ndax euh, dinañ ci mën a ñaan non xam nga jumaa jàkka yi pour julli la dem julli ak palaasu ñaanukaay yi ñaanukaay yi dañu bari maanaam nit ki am na ñoo xam ne dañuy dugg xalwatu duñ dem ci jàkka ji am na ñoo xam ne fa tabarakallahu parce que ñaan moom foo ñaanee mu nangu wa isa saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai isa daani ak fu mu ma ñaanee jamono bu ma ñaane su ko defee nag loolu sartun ci rek il faut nga dem ci jàkka ja door fa ñaane déedéet man foo mën a ñaanee rek borom bi day nangu subhaanahu wa taala jullit nag suñ ne ko nag bul dem jàkka ja ah su fekkee ne seetluwul ak xalaat ak i tamit xamul lan mooy feebar xamul lan mooy wàlle xamul lan mooy dégg nga dégare docteur loolu mën naa rëy ci moom ba mu fipp waaye yëf lu simple la lu woyof la loo xam ne te yuridu lahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne du ma leen teg lu diis mukk lu ma leen sant rek fa tabaarakallaahu man ngeen ko te lu ma leen yan attan ngeen ko su ko defee kon eh, dañuy sóoraale loolu bàyyi xel tey defee suñu sago tey demee nag suñu xalaat bu rafet tey déglu dëng signe yi docteur yi joxe ànd ko ak ñoom docteur amul benn docteur bu taxaw ne bu kenn julli déedéet defin wi ak façon bi ak anden bi nga xam ne mën naa am lu mu jur su boobaa dañ ciy dégg ndigalu docteur loolu rek la amin waaw ñu gis ne yenn am na ñenn ci imaam yi tamit ñu ñoom ñu déclaré ne dañuy julli ajuma est-ce que loolu tamit du mujjee jur féewaloo ci biir jullit ñi non du jur fé non loolu yàgg nañ ci loolu du jur féewuloo noonu képp ko xam da nga ne damay dem julli ji dangay dem julli ji xanaa leen gouvernement taxaw na la doo doo fi jaar ñëw fekk rek police yi taxaw gendarme yi taxaw su boobaa na nga xam naa ah, caaxaan jeex na léegi xanaa loolu loolu rek la may mais bu ne damay julli ji moom loolu moom amul benn benn benn borom xam bu mën a wañaar loxo borom xam-xamu morom ma amul benn borom jàkka bu mën a ñaar loxo jàkka jëlee amul benn association bu mën a wañaar loxo association bële ci seen bëgg-bëgg ak seen yéene ak seen jubluwaay yaa ngi gis de bu demee daris lu may gisal am na jàkk yoo xam ne dañ ko tëj te xuloo dong la feebar sa amu fa dañoo déggoontuwul ba xuloo gouvernement ñëw tëj ko ñu tëj jàkk ja tëj jumaa ja kenn du fa dugg loolu am na loolu am na du benn du ñaar mën naa la ci tuddal ay place su ko defee loolu kon su amee bii nag feebar a ko waral docteur xool ne buñ fa dajee mën naa jur lu rëy mën naa jur feebar boo xam ne bii dégg nga nit ñi duñ am fu ñu leen dugal dootuñ leen mën a faj mu wàlle gën a yaatu mu doon mu doon mbas moo xam ne mi day gën a yaatu ñu seet na mu gën a woyofee ñu defee ko ko islam daf leen ciy fekk si am ji jëmee ne ku ne damay dem julli ji kooku dañ lay bàyyi nga julli ji xanaa leen dégg nga gouvernement ci boppam jóg taxaw dégg nga jël matuwaayu boppam xanaa loolu waaye fi mu ne nii damay dem julli ji loolu du tax julli yi féewaloo de kii bu ne damay toog damay def li ma docteur yi wax bisimilah am na ci droit kii su ne damay dem julli ji ah kay am na ci droit su ko defee dañ leen di bàyyi rek incha allah waaye féewaloo moom du ci am ndax wóote yàgg wóote moom du fi jóg wóote moom du fi jóg mukk incha allah. imaam ñu lay gërëm di la sant. jërëjëf jërëjëf Amine seen sit bi am na solo lool ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yàlla na ko yàlla yokk mu nekk télévision bu mag.